centre bëggatuñu rek yem ci ay wax dañu bëgg a jëfee ba àdduna wërngal képp teg ci bët taxaw nañu fas yéene boole seeni doole ngir jëmale kanam seen ngëm-ngëm université d'été féministre bi nga xam ne ni waa jigéen Sénégal ñoo ko organisé lañ sa jublu du leen lu dul laaxaale rek ci mbir mi soxna yi nekk ci daara yu kawe yi. donc lii ñu def ni tey dañuy boole Afrique de l'Ouest ak Afrique du Centre pour que ñoom ñu mën a boole seen ay doole mais tamit ngir ñu mën a construire mouvement maanaam ñu mën a taxawal loo xamante si ni tey jii euh, ci wàllu Afrique francophone li nga xam ne euh, gis nañ ko ci wàllu anglophone. ci avancement ci wàllu mouvement féministe ñu gis ko aussi ci francophone parce que ñun francophone yi xam nañ ne des na lu bari lu ñu war a def. waxtaanee nañ fii it dugal gi ñu bëgg dugal mbirum genre si wàllum gëstu di recherche mu di projet boo xam ne gouvernement bu réewu Sénégal mu ngi si soobu bu baax a baax taxaw tembe fas yéene jàppale yi les féministes. li ñu lu ñu seetlu également mooy mouvement boo xam ne mu ngi yëkkati thématique maanaam di wax ci ay ay ay ay ay xew yoo xam ne ñun ci la ñuy liggéey. loolu waral tey ñu teewee ndaje bi pour mën a taataan li nga xam ne mooy seen mbëbët li nga xam ne ñun gouvernement Sénégal def nañ ko ci jéego ci wàll woowu ba tey ñu dab dabal ko mais ubbi yeneen eh, jéego yoo xamante ne ñoom dinañ ci gis seen bopp jigéen yépp gis ci seen bopp. féministes yi yamuñu foofee bëgg nañu balaa yàgg ubbi fi si réewu Sénégal ab télé bu ñu duppee Jigéen TV keppaar la boo xam ne soxnay kott la ñu koy jagleen jigéen ñi ñoo ko taxawal pour jigéen ñi waxee jigéen ñi pour jigéen ñi nag. wax waxu société bu ñu waxee pour société boole ci ñëpp. université d'été féministe bile dina am si diirub ñetti fan diir goo xam ne féministes yi daañu si séddoo seen xalaat ak seen i gis-gis li ñu bëgg daal mooy gën a yaatal mbir mi si seen biir.